maa ngi nii maa ngi nii fu ma ne fël. xaw ma lu tax rek yow amoon suñu complexe. ndaxte damaa nekkul complexe. yow noppi lan lu tax may noppi. gorobo. yow man damaa waar. dara Adja gis nga kay ma xamal la leen de bu la dara waar nag. Hmm? tey moom bàyyi rek ma toog ferenkulaay. di yokk jalaw. lu waay wax ma dugg si suba ba ngoon nag. Hmm? te di ruube rek. dafa désolé waay. <laughs> Sénégal moo neex. gis ku fàtte cosaanam di tiitaroo dëkk jàmbur. loolu moo raw coronavirus. ndaxte dafa am ñoo xam ne ba jonn yàlla ji tey xamuñu seen cosaan. am na wala amul. waaw loolu dafa leer. te li gën a bon ci àdduna nag mooy ku xamul cosaanam. dëgg la. xay ku weddi laajal sumbulu. mënoo comprendre. wala nga laaj Birima Ndiaye TFM moo raw ko macc ñaari paanu sump. man sama yoon nekku ci. wër garabu. war na laaj seen lexi duuf di mel ni fataay soixante mille. astafurla. sa leer bu soli. comme pas ko mbir mi maanaam question réponse bi. looy laaj. di ko laaj nag fan mooy cosaanam. waaw guy gi moom benn xale la boo xam ne nekkoon cene ba. i muy yéen. kon yow loolu mooy sa réponse. Ah, ah. na leer ci boppam léegi. guy gi moom dafa tàmm saa yu ñu ko invité rek ndoxum siti yëngu. traumatisme crânien di ma bëgg a rey. waaye bàyyi ma énervé tuuti sax. jarul énervé. jar naa énervé kay mais guy gi mi est que am na maam mbër sax. non non mbër yi rek yooyu yooyu excité wul. ah, ah. yooyu moom en yooyu existé wul. mais guy gi kon sa premier combat est ce que xam nga ni ñuy léwétoo. xaw xaw ma tànk yu may taxawee. kon bi artiste soufflé noo doon def. nii laa def sama ñaar loxo yi boo seetloo nii laa doon mais loolu ma taxawee nii. Hmm? mais nii laa taxawee. mbete bëre sinuwaa. nga ne. wala avance ci guddi gu bët setagul. noo def mu dugal ci yenn détails kii. cem. man de si guy gi rek laa gisee mbër muy xëppoo saafara adversaire am. daal loolu yéem na ma moom man la gën a yëm moos man mi posé question bi. gis nga doomu ma jàpp ko yombul. loolu dëgg na mais sa saafara adversaire nag. mais moom da ko jël xuppoo ko ba pare bëgg ma ko laal la ma ne ko indi ma laal la ko jàppale daal la. ça c'est extraordinaire. moo tax ma bëggoon laa posé ñaari question bu njëkk bi mooy ban ma toon la ji. xam nga kan mooy rëg-rëg. xam naa rëg-rëg waa xam naa loolu amul sens bi. ak ah, guy gi mii moom wóolu na boppam bi. rëg-rëg damay dem jël ko demaat ñëwaat buy dem mu dem bu demul mu xaar mais incha allah dama ko daan ci kàddu seen ama. mais waat guy gi mii fi mu jàpp rëg ah, ah. ñaar la de. ñaar la. guy gi depuis bi nga buddee sos muy échec ba léegi mënatoo buddi. mais booba tey maa ngi daan. yaa ngi daan mais simple wala buddi lañ la xamee de. maa ngi daanee nu ma neex. maa ngi mbot maa ngi traversé maa ngi braqué mais loolu daan yooyu man moo ma neexul ci am li ma neex mooy jàpp sànni waaw sa waay damay dégg loolu yow mënutuma ko am parce que ki muy war a bëreel ngembali mu dem yow ma xëyaam moo ko gën lan guy taxawal ah fii sa benn adversaire bi nga ko fay fay la ba pare mu taxaw ne la sama ngémba ngi nii am jàppal dëgg du rombi nopp au contraire yow yaa jag bay daan sa bopp loolu kañ la ban combat laa bëri daal sama bopp wax ko ko wax ko ko ñu dégg ko constat mais bële comme que erreur arbitre la. ah ci nekk di waxaat quoi. ana erreur arbitre ak dóor mu daanu. Eh, waaye ndaw Samba. loxo boo xam ne lappataake bi. Guinée Bissau Marsassoum Casamance <laughs> Banjul yëpp ñu tegale ko xool bam ni gàng ni ko pang kooku boo daanul yow doo nit. onze mille mais nag guy gi ñi ngi nee na naturel rek mën na tax mënatul daan kenn te fu bëree rek jël na defet man tu es naturel. nga ne. tu es. naturel. may sant yàlla bi ma déggulee tubaab sax. waaw guy gi ana doom yi yaa ngi ba tey wala. fa yow sama garaanga boobu tey ñu waxtaan ñu teg ko ci yoon bul yàq waxtaan bi. sportif du merde. mais man tu es sportif. tu es. sportif. waaw mais attends nag kan mooy professeur guy gi tamit. moo ma jaaxal. moo tax nag may laaj. looy laaj. li may laaj mooy guy gi ndax am na médecin. waaw ça va damay dégg loolu yow. ndaxte dégg naa heure bu ko joxee ay comprimé na ko nan ci un mois mu nan ci une semaine. wala sax ñu jox ko comprimé ne ko naan ko ci une mu naan ko ci benn jour. déggoo ma de. xanaa doo faral di naan ay Nivaquine ak FNL ga. est-ce que nekkul ne bactérie lay naan. man xam nga CACM. xam naa ko kay. lu muy def 6. 6 lay def waaw. barke Cheikh Tidiane li ma lay wax du caaxaan. yow kay waxal rek. dama ñëw teg CACM bi benn kaas laa jël def ci 6 CACM yëpp mën naan yëpp. mu ni. 11500. waa guy gi bi ñun la noonu nga def po bu yàggul rek ah. bu yàggul ki ma jaan garab bi ma joxee garab mu ma benn bi ngay jël ma ne ko baal ma jël trois parce que trois yi moo koy gën a moo koy gën a faj axrajan maxrajan léegi bi la joxee ay comprimé na la naan ko un mois nag la lu ñuy naan ci un mois une semaine laay naan fëgg pot bi teg ne mu ni sa kii nag day xaru quoi dof bi il est fou da koo donn professionnel la déet professionnel kay du def ni ngay def nii kii dof pilis la. ah dee waay dee. <laughs> ay waay fii kan ma fi am xam-xam ci wàllum santé di ko ba protéine bu ëpp la lay def ci nit. ci sama xam-xam bu gàtt ci wàllu wér-gu-yaram. waaw. protéine bu ëpp dafay wàññi sa taux de calcium. benn. ñaar. waaw. protéine bu ëpp mën na la indil ay jafe-jafe ci wàllu yax. donc sa yax day fragile. bismillaahi rahmaani rahiim. yow yaa ngi doon wax contre jos ak góor gi prix dib rek ngi ne gi baaraam bi damm na. non moo tax ma ne ko Lamine Samba il sa baram essayé ko. ah bi damul. day debbuwaat. lan. et eh, Père Lamine joxal ma guy sa baram bi waaye nee na day essayé. ma jox la sama baaraam nga damm ko xanaa kii guy gi ñemewu ko damm laa soo ko nee tépp nag di nga xam ni nii moo dam nii moo dam baaraam. nee naa la dofam bi nag da koo donn maa la ko wax. kii kay koo mais attends gi man ba tey li may laaj mooy ce que yaa ngi xool sa santé. non non non non non, santé bien ah bon santé bien. santé bien. Eh ne. comment vous comprendre santé bien. <laughs> je sais pas bien comprendre. ah. <laughs> te santé bien correctement maa ngi lekk maa Comment xaw xaw ma mais santé bien. kon santé bien. ferme-moi. man de lii laa wax. mbaay Je Je wa wa bu ko defee nag ñu bàyyi moom mu ñaan ba beneen yoon. amiin.